kun fayakun TV ñi ngi leen di siyaare bu baax di leen baal xaq te di leen ko baal yéen yi nga xam ne ni yeneen ñuy seetaan si canal bi ñi ngeen di invité ngeen abonné te bés kulus bi nga xam ne vidéo bu ñu def rek mën koo am si sensé ngi siyaare tamit ñi nga xam ne ne suñ mbokk ñi nga xam ne ne mooy ñi nekk si groupe whatsapp bi sallallahu ala muhammad karatayne bi yëpp ñu ngi leen di siyaare bu baax di waxtaan nag tey si wàllu ndomba gi nga xam ne ne deru mbëtt lañ koy awee bu ñu waxee nag derub mbët nga xam ne ne ndomba gi boo ko takkee wàll rab du la ñeme muy wàllu jinne nga xam ne ne da ngay bilee na sa yaram ba pare daf ko da koy tookee waaye lépp loo xam ne ne tamit yaa ngi koy liggéen lijjanti muy wàllu papier muy wàllu liggéey wala da ngay xëccoo dara fexeel ba gaaw ñaari gaaw yi loolu moom képp ki nga xamee ne dala say bëgg a yàqal wala képp ki nga xam ne ne dalaa bëgg xañ loolu du ko fekke muy wàllu kaaraange goo xam ne dafa am doole lool doo ko takk mukk mukk nit jéem laa bett di la teg gàllankoor wala mu lay jéem a posone wala mu lay jéem a yàqal la say mbir muy góor muy jigéen kaaraange la muy der bi nga xam ne nag deru mbëtt lañ koy defaree nga xam bu nga xasee ba gawal la ko nga takk ko benn gaaw bi rek ngay takk saa boo demee ba dugg si ay njaaxum ay problème gawal ñaar yëpp toog di seetaan nit mënu si yow dara lu jógewu si yàlla rek mënu si yow dara képp ku lay fexeel bëccëgu nara kàmm lay weeru ñu kooku moom da ngay tooke sa yaram kaaraange la waaye nag lépp loo xam ne da koy doxee ndax dafa am ñetti gaaw gaaw bu nekk bokkut ak sa moroom ni muy dox ñi nga xam ne dañuy lijjanti wàllu papier wàllu permis wàllu passeport wàllu liggéey wala wàllu këyit lu fekkee nag lii ma lay wax moom nekku sa yaram muy cat bu bon bi ngay lijjanti wàllu papier muy wàllu passeport wala muy wàllu visa wala wàllu dara nga ñëw gaaw ñaari yëpp dem ñaani suur bi nag lan la koy wax suur bi nga xam ne ne moom ngay ñaani si suur boobu nag ngay dem boo ko ñaanee ñu may la bu fekkee cat bu bon bi nekkul si bu fekkee nag cat bu bon bi am na butéel bu ñu lay jox boo xam ne moom ngay diwoo wala moom ngay sangoo taag boobu moom nga takk ndomba gi kooku moom lépp papier boo xam ne yaa ngi koy lijjanti yàlla dana la ko jox wala da ngay doxi soxna wala da ngaa bëgg nga jigéen gi déggal la si kaw kàddu ngeen juboo takkal ndomba gi dem wax ko sa soxla kon ndomba googu moom Kun Fayakoun TV rek la am eh, fii nga xam ne ne ñu ngi Fass eh, deux fois Fass si kër yaay Mbaye Gueye Faye bi boo ñëwee foofu boo laajtaane kër Sëñ Cheikh rek daan la woon beneen bi mi ngi parcelle incha allah boo wootee si numéro téléphone yooyu da nga jot ndaw ñi